aw d'abord ñu ngi rafetlu li nga xamante ne tey def nañ ko du guléet ñu koy commencé depuis daaw parce que gis nañ ni ñun ñi nga xamante ne ñu dañoo nekk enseignant wu APR nekk aussi nekk membre du comité pour le dialogue et la redynamisation ki nga xamante ne mooy sunu camarade Biaye moo ko jiite parce que dañoo gis ne que réseau rôle bi nga xamante ne waroon na ko jouer tamit joué ko mooy fexe. ba véritablement ñu nekk un tampon entre organisation syndicale ak gouvernement du Sénégal pour que suñu système mun a performant gis nañ ni année bi xaw na impacté muy daaw muy ren moo waral ñuy organiser genre journée yi genre journée ne nag mënuñu remplacer quand même un cours de neuf mois en quatre heures de temps mais li ñu mun mooy réviser c'est ruminer comme ce que fait le mouton donc par conséquent dañuy jàppale xale yi gunge xale yi dernier moment dernier instant yi nga xamante war nañ dem quand même li nga xamante école sunu outil de travail la lépp ñu mën a def quand même pour apporter sunu pierre véritablement pour que xale yi mën a nekk dans de très bonnes pour que véritablement ñu mën a affronter li nga xamante ne que mooy examen yi ñu mën ko jàll à loolu sunu cër la moo tax du ñu mus a taay pour jàppale xale yi pour jàppale professeurs yi. pour que au moins nag rôle bi réseau bi war a jouer naturellement rôle bi mu mun ko soxlu ñu di def promotion lamb wala musique wala leen école dafa bokk ci ñun mooy sunu seconde famille seconde milieu donc lu ñu mën a def pour gunge xale yi apporter sunu pierre à l'édifice pour que véritablement façon école bi nga xam ne moom la ñu bëgg ñu daal di koy gis sama école boo xamante ne tey dañuy nekk Sénégal exemple ci une école performante réseau bi dana jouer rôle boobu te ñu koy jouer daaw lañ ko commencé tey nag suñu objectif mooy lan du ñu yem fii daaw defoon nañu philo def nañ histoire géographie ren ci kattanu yàlla bëgg nañ def français bëgg nañ yeneen série littéraire yi ba pare teg ci nag SVT léegi nag mbébét la mbébét boobu nag yaakaar naa dinañ ko jéem parce que ñi nga xamante ñooy membre du réseau ak nekk na ñoo xamante ne ñu am pas-pas la ñu am détermination ñu am xam lu ñuy def xam fu ñu mën a jëm donc par conséquent lépp lu ñoo xam ne war nañ ko mën a quitte à ce ñu cotiser dinañ ko def pour jàppale xale yi parce que xale yi suñu doom lañ xale yi suñu xale lañ suñu jarbaat lañ mooy avenir ëllëg lañ ci mën aussi dinañ ko def. est ñett mission ñetti mbir xam naa ni nekk na loo xamante ni jàngalekat war na ci bàyyi xel même ko gouvernement Sénégal première mission bi mooy war nañ def ñun ñëpp ba préserver li nga xamante ne mooy école publique mooy suñu outil de travail beneen bi mooy lan ñu fexee ba préserver quand même li nga xamante ni que mooy avenir xale yi damay faral di wax ni dëgg la nit ki mën nga kaas pour préserver say euh, euh, sa intérêt. mais aussi ne bu ñu mettre quand même en péril intérêt wu xale yi donc xale yi suñuy xale lañ lépp lu ñu mën a def aussi ne wax dëgg yàlla war nañu mën a sóoraal beneen bi aussi ne valorisation euh, de la fonction enseignante aussi nekk na loo xamante ne wax dëgg yàlla ñor na tamit jàngalekat yi neexuñu grève bi nga xamante ne am na commencé wul ren commencé wul daaw mu ngi bëgg a durer presque douze ans. mais bu ñu sañoon école bi ñu am mooy école bi nga xamante ne dañuy topp lu ëpp dix ans yoo xamante ne grève du am dara du am donc pour loolu mën a am aussi yaakaar naa ni fondamentalement ñaari mbir war na ci mën a am partenaire état bi enseignants yi la à travers les organisations syndicales partenaire organisation syndicale tamit état bi la donc war nañu mën a toog waxtaan ñoom seen biir seet. li nga xamante ni wax dëgg yàlla mën nañu ko régler ñu mën ko régler li nga xamante ni mën na dem ci yeneen bis ñu vraiment ñu mën ko euh, différer mais loolu yëpp li ko war a laal mooy dëgg waxtaan am na solo ndaxte ñaari ñu bàyyante war nañu mën a waxtaan sinon li nga xamante moo ci en partie rek mooy élève la aussi nañ xam ni aussi ne gouvernement def na ay jéego jéego yu bëri président. à travers discours yi ma def ba ci démb wax dëgg la wax ni ci problème éducation bi ñaan na aussi tàllal na loxo képp koo xamante yaa ngi yëngu ci wàllu njàng ak njàngale nga mun ci wax bu bu ñu mën am saafara ci problème bi ñi xam ni injecté na wala boog loi rectificative dina injecté vingt quatre virgule deux milliards pour que ñu régler yenn situation certes li fi nekk neexuñu mais gouvernement bi tamit mu ngi def ay effort effort yooyu mën nañ jàpp ni tuuti na néew na mais mu ngi def effort nañ ko comprendre te aussi nag ñu regagner les classes joxe notes pour que véritablement la fa newoon mu bañ fi amati lii daal li ñu lu ñuy wax. Euh, la ñu répondre seen organisation donc euh, journée philosophique dafa euh, fekk ne suñu président de la république mooy président Macky Sall moo ñu sant ñun ñu former ñu jàngal xale yi donc daanaka journée boobu ci wàll boobu ci domaine boobu la dugg. donc loolu moo tax ñu teew fii ngir euh, xamal xale yi président de la république mu ngi seen ginaaw en tout cas mi ngi leen di ñaanal euh, tout cas le jour <clears throat> ku nekk nekk ci disposition boo xam ne ko permettre pour mu def bac dans de bonnes conditions pour mu réussir examen euh, non <laughs> du question xub du question xub dafa mel ni ministre dafa bëgg doxal loi loi boo xam ne ñun ñëpp ñoo ko tëral daanaka situation su tollee fu mu toll ni te xale yi ñoo nekk obligation pour ñu euh, jàngal leen donc euh, di nga gis kilifa gi dina dogal loi boo xamante ne peut-être euh, dina permettre à ce que xale yi ñu mën a bénéficier wu formation boo xamante ne ñun ñëpp boobu la ñu bénéficier wu loolu kese la mais jàngalekat yi ay Sénégal lañu ay patriote lañu donc daanaka peut-être jàllul loi boobu ñu jël ko puisque jàngalekat yi yeneen saa dañuy euh, xëy dimanche di joxe ay cours xëy ay samedi soir ñu joxe cours te loolu bokkul seen emploi du temps donc euh, nit ku mel noonu jarul ngay jël luwaa peut-être di dox loolu mais quand même di leen euh, ñaan pour que ñu delloo élèves yi seen note ñu jàngale xale yi pour que chance buñ ñoom bu ñu am. ngir nekk ay professeur de philosophie ay professeur de mathématique ay professeur français xale yi tamit am chance boobu nekk ay professeur nekk ay docteur nekk ay médecin nekk ay ingénieur et cetera et cetera nekk ay journaliste comme yéen loolu kese la mais du ay menace président de la république musul menacé kenn nitu dialogue la parce que samp na fi haut conseil du dialogue social ñaata euh, ndaje la woote pour euh, diisoo mën a am euh, ci wàllu njàng njàng ak njàngale mi ci enseignement supérieur def na ko te gis nañ ñëpp gis nañu euh, côté boobu en tout cas situation mi ngi commencé améliorer même ci yeneen secteur d'activité tey boo seetee secteur privé daanaka amatul grève daanaka ci wàllu santé ak euh, éducation kese euh, moo des président pour mu insul sinon gis ma situation comme ay genre menace yooyu mënees mu lu ma. non saafara na mbir mi saafara na bu pare ñàkk euh, parce que actuellement presque ci classe examen yëpp donc je crois euh, defe naa cours ñu ngi euh, ñu ngi wëy normalement donc grève actuellement grève amatul ay quelques détails rek moo des mais sinon mbir mi saafara na bu pare. Boubacar Biaye honorable député.